sëñ Aliou demee Serigne Touba. da ko ne Aliou am nga ngërëm lu jafe ngërëmul Mbàkke maa ne. nag mooy dox ba nii. Mhm. ngërëm looy nu di ko sàkku. Mhm. sëriñ bi nee na nee na. Mhm. mi ngi lay seeral ne. mboolem ñi mu bokkal sëñ Aliou. ak ñi mu bokkal Bawal. ak ñi di wëlëre. sant na ñëpp. gërëm na ñëpp. ndax danga koo tegal ci loxoom. sëñ Abdoulaye mi nga xam ne moom mag ci sët yi mu mu defaat ko muy jëwriñ mhm. mu ànd ko ak sëñ Ahmadou mii di xalifa sëñ Modou ak sëñ Dame Jàbbam mii xalifa ko sëñ Basiru ak sëñ euh, Assane Diouf rakkam ak sëñ Alaaji Diouf ak sëñ Aliou Baxdaat ñoo ñi nga xam ne ñooy ñooy kër sëñ Aliou ñoom la àndalan ñu di ay doom mhm. ak sët ak i taalibe waaye bañ ko tàmbalee ba ne mu àggee saa bu geesoo gis na leen te lépp loo xamante ne bii ak bëgg ma di sa bëggit def nañ ko ci ba mu jeex kon mu lay seetal ne nag gërëm na gërëm na leen ngërëm loo xamante ne bii mi ngi la koy seeral nam nga waxoon keroog rek ñu ñaan njariñu tey ak ëllëg ak taalibe gu amut ak ak yàqu rek loolu rek loolu kàddu yi ñu wax mu gërëm loolu mu gërëm waaw nee na kon moom gërëm loolu mu leen gërëm moom moom gërëm nañ ko alhamdulilah nee na moom moomu gërëm nañ ko ànd ak moom si ngërëm loolu mu leen gërëm te ànd ak ñoom si ngërëm loolu mu leen gërëm nee na jërë ngeen jëf nee na xolam sedd na guy nee na seen xel dal na bu wér jërëjëf noonu rek la demee alhamdulilah fas yéene koo ànd ak yéen rek. gën a yeesal suñu jaayante. gën a fàttali suñu laxasaay fas yéene koo ànd ak yéen. alhamdulilah Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke